nuyu ah waa Kafountine itam ñoo ngi leen di nuyu parce que ñoom ñëpp ñoo ngi jokkoo ak ñoom waa Thiès itam ah fu waay nekk rek dañoo seetaan ñoo ngi leen nuyu di la ziare salaamaaleykum. salaamaaleykum. nuyu naa la ñoo ngi lay fay est ce que doon na baal yokk kàddu gi tuuti. waaw waaw alko kii la. Mbour di wote Mbour. d' naka waa Mbour Géej. ñu fi ñu sant bu baax waaw. na solo ayca bisimilah ci man li ma njëkk mooy. dama koy jiitee dama koy njëkkee ci dem euh, ci dem monsieur le président Macky Sall mm-hmm. ma koy wax mooy na respecté jox cër monsieur président Ousmane Sonko Ousmane Sonko bëgg naa képp ku duggati ci live ci direct bi Ousmane Sonko bu ko waxati del wax monsieur le président Ousmane Sonko ndax loolu yàllaa ko ko defal personnalité bi mu am Macky Sall dignité bi mu am ak yi li nga ko yaakaare xam nga li am solo mooy yaakaar ak bëgg yaakaar Ousmane Sonko dafa yëmul ci Sénégalais yi africain yëpp dañoo manko chaque jour bu ba bëccëg ñuy def ay live di def direct di waxtaan ci mbirum Ousmane Sonko xam ne kii moo mën a defar Afrique kon Macky Sall la ma koy ñaan na respecté Ousmane Sonko génn gi muy génn di yàq der yenn saa yi di yónni ay journaliste wala mu toog di wax na respecté ki mu waxal xam ne ki muy waxal moo ko ëpp dignité ëpp ko personnalité ëpp ko fulla ëpp ko fayda mm-hmm. gën koo bëgg Afrique gën koo bëgg Sénégal seen yi ñuy yoon nag maanaam comme élection yaa ngi jub si nii te mu neex leen ak mu naqaree nga xam nañ ne deux mille vingt quatre fiy jógee léegi leen doogu lañ pare leen lañ dese leen lañ dese mooy danañ jéem a jàppale seen nit yi yónni ay journalistes yoo xam ne nii tekkiwuñ dara ku mel ne Cheikh Yérim Seck wala ay nu mu tudd sax waa ji waaj ji ñuul jooju may bañ a tudd tur di toog di wax loo xam ne nii dara bu ci rek waaw di invent dañu inventé di jéem indi ci xelu Sénégalais yi maanaam di jéem a jaxase Ousmane Sonko ak adduna bi wala Sénégal réewi tubaab yi ak africain yu mel noonu fekk loolu dañ ko waxtee Ousmane Sonko mission da koo da koo matal ba mat sëkk ndax jaar-jaarama tax histoire gis nga. gars yi ñëpp africain yi wax ci moom yëpp dañoo gëstu ay mbiram. d'accord Ousmane Sonko ñëpp dañoo gëstu mboolem lu ne ci moom. Mhm. bala ñuy dugg ci moom benn wax di ko wax wala ñuy yëkkati benn kàddu. Mhm. mboolem africain yi nekk di wax ci moom dañoo lijjanti ay mbiram. xool fu mu juddoo fu mu jugee. léegi léegi léegi ci mbiri Ousmane Sonko yooyu noonu nga nekk di wax. ah euh, euh, am na ci loo xamante ne itam ci ay jamono ñu ngi ko daan dégg mooy ni nga xamante ne noonu lañ ko dàqee ci fonction publique la ak ñoo ngi dégg sax ne ah, am na jëg ñaale président bu ko waxoon ne Ousmane Sonko jël ñu ko daal di euh, toxal maanaam daal di yóbbu hors de Dakar waaye nag bi moom moo mujjee daal di boobu la bokk na ci li nga xamante ne moom la yóbbu woon CEDEAO waaye nag mbir yi leerul woon ci kanamu askan wi léegi nag moo leer waaye koppar gi ne moom la Ousmane Sonko doon sàq wala sax moom lañ ko naroon dàmpee toll ci 1200 milliards loolu itam kilifa yooyu ndax euh, euh, raisonnable na sax ci wàllum yoon yu àtte di ko jox nit. waaw loolu loolu boo gisee mu koy wax alo wii ma ne loolu boo gisee mu koy wax moom dëgg dëgg ko ñor day bëgg maanaam dëgg gi ko yàlla jox ñu jox ko ko maanaam moom amul lu muy topp kenn waaye day war ne maam moom ci dëgg la nekk dëgg la xam ci lay dox ku liggéey fukki at ak juróom ci état mosoo ci lekk fukki daram kooku africains yi dañ koo yàkkamti mu taxaw ci nguuru Sénégal pour defar Sénégal yàq der yeeg diabolisation beeg wax lu la neex loolu day jeex Ousmane ko nit ñi ci xel lañ ko jàppee ak mhm. xol gëstu bu baax lim man ak lu mënut ak lim bëgg a tabaxal Afrique lim bëgg a def Sénégal loolu ko nit ñi toppee mhm. kon nañ dalal seen xel te xam ne yàq der jeeg wax lu bon leeg yooyu loolu c'est faux jàll nañ ko affaire Adji Sarr gënu la garaaw fop te loolu suñu borom jàllale la ko. Mhm. foofu bu fekkee Ousmane ko jàdd foofu fu mu bëgg a jàll day jàll incha allah rabbi. Mhm. oh merci. ah merci di ko nuyu di ko jaajëfalaat bu baax a baax ah kàddu mi yëkkati am na solo régie su nekkee am na keneen rek jox ma ko 77 810 90 90 77 810 90 90 di ko jaajëfal di ko nuyuwaale moom mbokk moom doon wootee Mbour di jaajëfal bu baax a baax moomoo itam ah sunu xarit eh, eh, moom Mbour la nekk di seetaan saa su nekk waxtaan wi moomoo mi ci kër gi itam ah maa ngi koy jaajëfal moo xaritam Ousse ci kanam nag la ñuy daal di bi nga xam ne moo di moom lañ leen indil mbokk mi génn léegi wax na ci lu am solo ah Ousmane Sonko mi doon laaj état bu Sénégal euh, junni buñu ñu toftal ñaari téeméer ak juróom fukk milliards ci koppar ginnaaw bañ ko dàqee ci fonction publique salaamaaleykum. waaw maa na ngeen def. maa maa ngi lay ziar baax ma tuuti ah, parce que dégg-dégg bi daa xaw a suufee ci oh. man. allo. allo oui maa ngi lay dégg bu baax Diallo. waaw maa ngi ziar seen télé bi di yokk di ñaan yàlla yàlla def ko mu gën a yokk gën a baawaan gën a saawaan gën a am doole. amiin soxla nañ ñaan di rafet seen liggéey baax a baax a baax. Ah, merci beaucoup amiin amiin parce que yéen ngi leeral askan bi lu dëgg yéen ngi wan askan bi dëgg yéen ngi wan askan bi nga xam tey jii mm-hmm. yéen a ngi wan Sénégal li nga xam tey moom la Sénégal yi soxla mooy lii. Mm-hmm. nit ñi di wax seen xalaat. Mm-hmm. waaye naa la wax ñaari baat. buñ doon buñ doon fay ko bor Ousmane Sonko war naa fay Sénégal lu ma deux cent cinquante milliards. deux cent cinquante waaw ak ba pare fay ay bakkan yu dund. Ah, ah, baykat yu xam ne day à moom. <laughs> non bakkan moom des des na ko a fay dërëm. dërëm. li mu war a fay laax dama ne bu dee ko li mu war a moom. Hmm. war naa fay ay ay bakkan yu dund. war a fay ay lu deux cent cinquante milliards yu xam ne war na ko fay Sénégalais bu doon teg tegu ci yoon. Hmm. parce que Ousmane Sonko ñëpp a gis li mu def ñaata ñëpp a gis li mu yàq Sénégal kan moo gisul ñuy wax ñëpp moo naan gisuma lii Ousmane Sonko def na yàqu Sénégal. kan moo naa gisuma ñuy dee à cause de Ousmane Sonko tax ñu dee léegi moo ñemee dugg nii lii la xam nga ni Sénégal ah bu ne at nañu àtt dëkk te yàlla tax il faut ñu respecter suñu président de tous les Sénégal. Mm-hmm. moo leen. allo. allo ku baax Abdou Fall rëcc na ah, nga jotaat nga lu ma ko su nekkee am am na keneen rek jox ma ko itam salaamaaleykum. waaw dama ne recevé d' accord. allo oui. waaw man la maa ngi wote Mbour. Ah, wóyal ligne bi dafa mel dafa dogoon. waaw aja ñu wóyal. ok léegi li ma li ma doon àggale mooy baykat yi. Mhm. maanaam euh, sorom lañu waxante dëgg. gis nga nit du du fekk ci yàlla de mënoo jël. Mhm. daaw nga jënd kilo gerte ñu jaayee la ko quatre cent cinquante. Mhm. engrais ñu jaayee la saako engrais vingt quatre mille. nga dem jënd loolu. dem taaba taaba lijjanti ba tàmbalee bay sa mbay ba sa mbay ñor nga wut sa hmm. gerte gerte googu ñun la au lieu que mën nañ koo jënde six cent wala mën nañ koo jënde cinq cent ñu ne la deux cent quatre-vingt-dix ah déet waxuñu ne deux cent quatre-vingt lañ ko jëndee de état bi déedéet état dafa ne gën gaa yées il faut faire attention aussi sur la communication gën gaa yées maanaam prix plancher bi gën a ndaw c'est deux cent quatre-vingts francs donc ku mu neex aussi nga jëndee trois cent nga jëndee quatre cent cinquante mais am na prix boo xam ne moom la ñu plancher itam ci njaay mi war ñu ko weesu xam nga xam nga bu ñu nekkoon ci réew mu jaadu maanaam gerte Sénégal mboolem baykat bu bay ba pare kenn warut a génne gerte gi du fi génn ci di ko jaay bitim réew ndax loolu du arrangé ñi dëkk ci Sénégal état bi jëm boppam moo waroon def effort jàppale béykat yi béykat yi bu ñu mu mën a jënd seen gerte cinq cent wala six cent ndax man na ko. waa léegi mais waa léegi damay laaj. sëñ bi damay laaj parce que bu ñu fàtte aussi ne. état bi moom su jëndee gerte fa la ko yóbbu fi nga xamante ne moo di Sonacos ngir ñu ngir ñu defaree ko diwlin. léegi nag gerte googu nga xam ne tey dañ ko bëgg a jëndee 500 kon litre diwlin ñaata est-ce que litre diwlin dana mën a jaar lu gën a yées ñaari téeméer itam. loolu itam foofu la ñuy reflété li ñuy jaay ci litre diw li ñu la koy ni jaadu. nii am état di jaayee maanaam état du Sénégal ni mu bàyyee ñuy jaayee litre diw nii loolu lu lu garaaw a garaaw la. Mhm. waaw ndax maanaam ñoom dañoo askan wi dañoo ñëw ñoom seen politique lépp politique bu maanaam koom-koomu Sénégal wala luy doxal Sénégal da leen a yitteelu. Mhm. ñoom lañ fexe ba ñu nekk ak ñoom la dund. Mhm. ku bokk ci ñoom bul am benn problème am na ñoo xam ne tey tey boo newoon kon kilo gerte maanaam boo newoon litre diw. cinquante mille lay jar ñoom pare pour jënd. ñoom amuñu problème bu mu am xool na am rek am ñoo xam ne na am am ñoo xam ne nag naan dafa cher mooy néew doole yi ñee nag ñëpp jëm nañ alalu Sénégal mbooleem lu Sénégal yi ak ñu ko lu lu fukki nit bokk benn nit ko yor mhm. benn nit boobu moo koy yor moom dara lu seer ci moom boo gisee courant bi nii ni seere am na ñoo xam ne nii seer boobu ñu wax di jëndiw ko ndax lan mi ngi tëdd ci milliards yi Sénégal yoo xam ne nii tey bu ñu leen indiloon facture un milliard wala un million ñoom duñ fay ko du dara ci ñoom Mhm. maanaam loolu la ñu war a jubbanti état maanaam politique bii ñuy politique moo baaxul ñii dañu politique pour maanaam affaire ay affaire u affaire loo xam ne lii ñoom ku eh, eh, état dañ ko jàppe pour kër la kër goo xam ne ni ku sa ku ku ku mag rek yaay jiite mboolem li fi nekk rek yaay sédd ñi ci des ñu dëkk ñu dëkk ci kër gi waaye ñeneen ñi nga xam ne ay mbokk lañ dëkkandoo seen i nekku ñeneen dañ leen sarax rek mhm. esprit boobu il faut ñu dépasser ko xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk fii réew mi rëyut réew mi li fiy dund ci ay doomu aadama bëriwul hmm. bés bu ñu organisé woon am état yu baax am di njiir yu baax fii Sénégal kenn dafa sonn hmm. ni Qatar di génnee asaka di ko génne Sénégal mën naa génne asaka boobaa di ko may yeneen réew jullit yi wala yeneen réew africain hmm. waaye ñi ñuy ci boppam ñoo përéwut pour Sénégal baax ñoo përéwut pour nit ñi yeewu ñoom bis boo jéemee sax ñëw di jéem a wax ci xel wax leen luy jéem a defal Sénégal sax ñoom pare nañ pour faagaagal la rey na sax jaajëfal nañ. Hmm? loolu bu ñu ci réew mel noonu nag ñëpp a war a taxaw takku xam ne liy defar Afrique liy defar Sénégal. Hmm. du jógee ci France du jógee ci Allemagne du jóge ci Amérique. d'accord ñun sénégalais yi ñooy defar Sénégal. merci ci fulla ak fayda. merci beaucoup ndax mënoo fekk benn benn groupe bu ndaw. Hmm. bëgg a jàpp dix dix huit millions sénégalais. bëgg leen di leen patam patamee di leen def lu leen yàq. di la dugloo fii di la génne Mhm. Ousmane Sonko mii problème yi yëm yëpp lan moo ko waral ñëpp dañ na koy wax dañ naan leen ndongo mooy problème am. muy mhm. jub bu ñu demee ba ci am réew ñu ne kii lan ndongoy problème mu doomu aadama mooy jub. Mhm. réew moom réew ma la de la nañ dem a xool xam ne réew mii ñun ñoo ko war a defar ñii xam nañ ne seen bañ doon def jeex na liñ daan naxee Sénégal yi loolu jeex na tàkk bu élection yi ñëwee ñu yëkkati ay saaku ceeb ak ay financement ay diw woo ay waxkat yoo xam ne nii san rek la ñu mën toog ci ah, rajo yeeg télé di wax rek man loolu maa ngi ciy appelé journaliste yi daanaka mën naa ne nga jégal ma bu baax waaye bu doon téeméer rek bu Macky Sall ja ah, yàqee juróom-ñeent man moom journaliste yi tamit yéen sonal ngeen leen journaliste yi trop nag eh? journaliste yi ñoo yàqu yaanaka ñoo yàqu Sénégal <laughs> ndax ñoo ñoo waroon nekk quatre quatre euh, maanaam euh, banqaas yi gën a téye Sénégal ah. ginnaaw président ensemble wan yoon journaliste yi ñoo nekk quatrième te daanaka lu yàq Sénégal ñoo ko yàq ndax